ne abarbu waqtun aw makaanun dummina fii bittiradin kahunan kus asmuna fansibu bil waaqii fihi muzhara kaana wa illa fanwihi muqaddara wa kullu waqtin qaabilun daka wama yaqbaluhu almakaanu illa mubhama nahwu aljihaati walmaqaadiri wama tafsira min alfiali kamarman min rama wasatu kawni makisa na yaqa te ma ñu jàng ci benn ci ma li ñuy wax mafonlu fiihi te mooy li ñuy tuddee zarfu benn lañ moom la lay jàngal mu ne a zarfu zarfu luxatan ci luxa sarfu li muy firi ci waxi arab almia u moo ndab waxtilaan li muy firi ci jubóo gaa yi nax wii nag buñ ko waxee ci nax wu nag waxtun lisimi jamono lay doon aw makaanun wala lisimi barab dummi naa yooyu lambalees na leen fii maanaa fii bi ci xiyaasu lisim tegta tegtale jamono mbaa muy tegtale barab te nëbb ca fii te nëbbu ga fii de lu xiyaas ànd ak moom eh. moom la ñoo tuddee zarfu eh. buy lisimi jamono ñee zarfu zaman eh. buy lisimi barab ñee zarful makaan Faxaraje génn na. Eh. lu mel ni watarxabuuna. Eh. an tankihoohunna. Eh. su ñu nat leen fii lañ fi nekku. watarxabuuna fii an tankihoohunna. an tankihoo bu taawilee masdar nikaahu la. nikaahu dut ismu sama. dut ismu makaar. kon loolu kenn du ko fee baax. ak lu mel ni wayaxaafuuna yawman. yawman ismu zaman la. waaye lambowul maana fii. kenn du ko tuddee xarfu mm. dañ naan mafool bii la rek mm. ak lu mel ni daxaltu daara mm. ak sakantul bayta ak daara lisimi barab la al bayta lisimi barab la kum ci mën a doon mu ngi làmboo maanaa fii ndax daxaltu daara dafa mel ni daxaltu fi daari sakantul bayta dafa mel ni sakantu fil bayti waaye nag nattale fii ci addaaru eh. ak nattale fii ci albaytu eh. dullu xiyaasu de ànd moom fu eh. am na fiil yoo xam ne soo ko bëggoon a booleeg addaaru wala albaytu doo ci mën a nëbbu fii kon day naan dañ leen nasab ci dindi arabu jar waaye kenn du leen tuddee ay safu day ko baax a baax tey julli naa ci kër ga doo wax sallaytu daara sallaytu fi daari rek ngay wax loolu rek ngay mën a so bëggoon wax nelaw naa ca néeg ba doo na wax nimtul bayta nimtu fil bayt rek ngay wax kon li nga naan daxaltul daara wala sakkantul bayta dana bu fii léeg-léeg ci baatal addaar ak baatu al baytu du lu xiyaasu lu ànd ak baat yi fu ne kon baat yi duñ leen tuddee ay zoro war it la yuqaal salaytu daara salaytu fil daari rek ngay wax wala duñu wax nimtul bayta nimtu fil bayt rek ngay wax a zarfu zarfu waqtun lisimi jamaano lay mm-hmm. aw makaanun wala lisimi barab summina mm-hmm. joj lambalees na ko mm-hmm. fii maana fii bittiradin ci xiyaasu loolu la ibnu malik de misaal ne kani ki waxta jënga ne ne ki um, um ku saxal xunaa ci fii azmunan ay jamono xunaa barab lay tegtale mu ngi lamboo maana fii te nëbbu fii ci wu lu xiyaasu eh. eh. eh. la ci baat bi kon dañ naan la gannaaw barab lay teg la nag zarful makaani la ak mu nan jamono lay tegtale ñu ko nattaleel maanaa fii muy lu xiyaasu ànd ak moom kon itam dañ naan zarfu la gannaaw jamono lay tegtale nag dañ naan zarfu zamaani la li muy zarfu dégg nga fansibu nang ko nasabee moom zarfu bil waaqi ci haamil baraa ci dal fii ji moom sarfu nag dañ koy nasab mm. li ngay dëgg di ko nasab mm. mooy fi'il bi mu jumla bi mm-hmm. wala li mel ni fi'il mm-hmm. mutharak moo xam lu ñu feeñal kaana la nekk mm-hmm. moo xam li ko nasab yaa ngi janoog moom ni ngi hunaa agas munan um kuski leen nasab yaa ngi janoog ñoom wala nga ne jalastul yawma amamaka al yawma sarfu zamani la amamaka sarful makani la jalastu mi leen nasab yaa ngi janoog kon sarfu dañ koy nasab bi amilin maskurin wa illa su fekkee la nasab saraf feeñul fan wi nattale ko muqaddaran muy lu ñu nattale saraf man nga koy nasab te la nga dëgg defa nasab doo ko génne da nga koy nattale rek jawaasan ci dagan fekk daf la neex nga ñàkk koo tudd rek waaye bu la neexoon nga tudd ko sax mu ne ko misaal ne naxwu waxta jënga ne fas sa xëy ni ñaari fas sax laa dox jawaaban liman qaala kam sirta ne a daf laaj li nga dox nu mu toll pour nga toll nga ne surtout farta xëy bi ci jawaab bi moo wara a nasab farta xëy ni muy sarfu waaye dañ ko xamee ci bi ci sual bi nga far ne farta xëy ni léegi asam nga li nasab farta xëy ni te bu la neexoon nga tudd ko wala nga yawmal juma keroog ajuma laa ñëw jawaaban liman qaala mata jiita kañ nga ñëw tontu bi lim mooy jiitu yawmal jumaati eh. jiitu bi ci jawaab bi da ko asam eh. ànd ak ci nga nga na sab yow eh. jiita bi ci sual bi moo ko wan man xaala ma tàggit wu jooba danay do ci lu waa saraf léeg-léeg nga fekk ñu nasab ko te fekk fam xaaju ñu ne foofu lañ ko nasabee kenn waru ko indi in waqaa bu tabbee xabaran sara bu fekkee dafa doon xabari mubtada mm. istaqarra ba muy haju mm. kenn du ko tudd Seydou neen daka mm. istaqarra bi mu haju ci nga dëgg nga di ko nasab waaye boo ko indi woon yaa xabaat lay doon wala muy xaal wala zarfu nekk xaal waaye itam moom rek la ñuy indi waaye foofu haju duñ ko indi ra'aytul bay bayna sahabi bayna bi sarfu la ci istaqarra jumla bi war a nekkee barabu nasab te xaal al ilaala eh. léegi mu taallaqu zarfi eh. te mooy amilu sarfi ko eh. kenn du ko addi dégg nga aw sifatan walla boog marastu bi tairin fawqa xusnin fawqa bi sarfu lay ci istaqarra jumla bi istaqarra war a nekk naat ci tairin istaqarra boobu kenn du ko addi aw silatan walla muy silla walla muy silatul mawt alladi indi doo wax alladi istaqarra indi fansibu nanga ko nasabee moom sarfu bil waaqi ci xaamil bu daaji dal fii ci moom fam haju fa la ñoo dëgg de ko nasab mu taarat moo xam de feeñal kaala la nekk moo xam yaa ngi jënoo fam haju way laa bu fekke foo feeñut fan wi nattale ko muqaddaran muy lu ñu lisim nag buy tegtale jamono hmm. pour nga nasab ko tuddee ko saraf hmm. amul benn sarta hmm. waaye lisim nag buy tegtale barab pour nga nasab ko tuddee ko sarta day am sarta moo tax ne wa kullu waqtin bépp jamono qaabilun aji nangu la mu saaka nasab googu ci saraf lisim gannaaw mu ngi tegtale jamono rek bu la neexee nga nasab ko ne saraf la amul ay sarta yuñ cee seet dara saaka nasba ala sarfiya sawaawun kaana mubhaman eh. moo xam luñ lëmal la mënoo koo jox xaq bu ràññeeku eh. mënoo koo jox melokaan wu eh. ni ngi lu mel ni xiin mën naa doo xaq mën naa doo ab diig mën naa doo weer waaw nga ko war a saf nga ne sarfu la nga ne makkas doyen de kum xiina ak mudda moom itam mubham la moom itam mënees na koo nasab ñu la nga ne makkas doyen dana mudda gis nga baax aw muxtasan wala muy muxtas muxtas mm. mooy loo xam ne man nañ ko jox dayo bu ràññeeku mm. wala ñu man ko jox melokaan wu leer mm. ni ki lan yawmal xamiis xam nañ ne mooy bëccëg bi topp ci bisu àllarba guddig guddi guddig selo bëccëg bi nga xam ne bu jeexee ci la guddig xaj bi muy dugg xam nañ fi mu doo daal joxe na dayo bu ràññeeku ma nef na ko nasam ñu déggu sax wama yaqbaluhu hmm. du nangu nasabu googu nag hmm. almakaanu lisimi barab hmm. illa mubhaman ndare mbir muy mbir moom muy lu ñu lemal amma lisim bii teg sale barab nag pour nga nasab ko ne saraf la day fekk muy mubham la muxtasan woo moom muxtas maa mooy lu xam ne la woo ñaal na ko suuratun melo waxu doodun ak dayo max suura téere ñu takk barab su fekkee buñ ko jox ñu ko waxee rek danga nga mën a nattale yaatuwaayam wala nga mën a nattale dindareem rek day naan mu kii la muxtas la waruñu ko na sam yeen la comme daarun kër fuñ ko waxee danga da nga mën a nattale yaatuwaay mën a nattale nu mu bindoo xariyatun wala baytun yooyu doonte barab la tegtale kenn du leen nasab di leen tuddee ay suroo ndax duñ ay mubhamaat wal mu xam mubham nag mm-hmm. maa mooy lu xam ne laysa kazalik mm-hmm. baat bii tegtale barab nag te mënul laa jox xaddun maxsuur mm-hmm. mënul laa jox suura muayyana baat boobu mu la ñuy wax mubham moom nga mën a nasab te ko sartu ndax wul jihaati ni ngi asmaawul jihaati sitti lu mel ni amaam ak waraa ak lu mel ni yemin simal hmm. ak fawqa taxta hmm. yéen ñu ngee tegtale barab hmm. te xamuñ dayoo bu ràññeeku xamuñ melokaan itam wu ñu xam dëgg-dëgg kon ma neex leen nasab di leen tuddee sarab nga ne waqaf fi yamin al amir wala fi simalahu wala fi amaamahu ba mu dégg nga ka yemin wasimalo fawqa wa taxta wa amaam ak wara mm-hmm. wasifa ak yu ne mel ni ñoom rek comme nahiya ak makaan ak janib mm-hmm. yépp ci mufamatul asma al makadiya lañ mm-hmm. manees na a leen tuddee ay sarf wal maqadiri ak lisimi kem yi ak lisim bi teg tale miqdar comme lu mel ni mil lu mel ni barit lu mel ni farsax yooyu yëpp ay mubhamaat la eh. manees na leen a nasab ñu tuddee ko sarfu eh. nga ne surtout farsaxayni wala surtout farsaxan eh. wala surtout miilayni wala surtout miilan wala surtout baridayni wala barida ba mu àgg mu ne wéy ñu asmaal maqadir minal mu xam mu ngi bokk ci yiñ lamal ala say jox ba gën a wér wama ak lu xam ne siixa tëggis na ko mm-hmm. minal fiali ci fiil mm-hmm. ak baat biñ tëgg ci fiil ndég da wane barab bañ koy xamalee mm-hmm. ñu daan ko tuddee masdarul miimi ba ñuy jàng tasrif bu tegtalee barab day nekk ilmu makanin mubham hmm. manees na ko nasab ñu tuddee ko sarfu hmm. ndegam sarfee ko war a nasabee dajee na ñu hmm. ngi majlis jékkiwaay makanal julóos lay tegtale mawqif taxawukaay makanal wuqoof lay tegtale seetlu nga bu baax a baax wala maqaam makanal qiyaam lay tegtale seetlu bu a baax manzil yooyu dañ naan ay asmaa makaaniye mu famale mm-hmm. ah manees leen a nasab di leen tuddee sarf mm-hmm. moo tax ne ka marman ni ki marman bii firi sànni waaye mooy makaanu rami mm-hmm. min rama yaa ngi ko tëggee ci rama ak lu mel ni mazhab yaa ngi ko tëggee ci sahaba te makaanu sahabi la ak mel ni maqaad yaa ngi ko tëggee ci qaada te makaanu xoodi la mawqif min waqafa ba mu kon ñu jàng loolu ndax wul ni ki lisimi wàll yi juróom benn ci mu al asma almakaniya lañ bokk manees na leen a nasab tuddee leen sarat wal maqadiri ak lisim yi kem tegtale kem ak asmaul maqadir moom itam ci mu faamaatul asma ye ci lañ bokk manees na leen a nasab di leen tuddee ay sarfu wa ma ak lu xam ne siixat te gis na ko minel fi'li ci fi'l ak liñ tëggee ci muy muy tegtale barab bañ xamale feneel ji hmm. te daan ko tuddee eh, masdarul mimi hmm. loolu bu tegtale barab dafay bokk ci asmaul makanil muhamma hmm. manet na leen a nasab tuddee leen sarat waaye day am sarta sarta bi mooy lan insha allah danañ ko jàng beneen yoon moom la a malik de misaal ne drama